yow mag mu jëmm mu day na yow lan ngay def di saw ci sama paan yi di ko sotti boo bëggee saw boo bëggee kakaar yi kakaar te kër gi fu ne am ay douche douche yi set bu bëgg a dee douche bi ci suuf yow ak beneen jànq bi rek yéen a ko moom lan ngay lan moo tax ngay def loolu mu waat ci njabootam rey njabootam rey ñëpp ne moom defu ko waaw ma ni ko ma ni ma ni bon loolu yanuwul maanaa daal loolu naka naka mën a defee bien que man gis naa puub yi man bi génn bi sama jànq bi génne boobu troisième bi dernier bi nga xam ne ñoom ñëpp doon nañu ma ko woon wax dañ ko doon nëpp nëppal dernier bi moom bi ñu génnee ubbee congélateur bi j'ai vu léegi mu waat at yépp ne du moom defu ko bon ma ne ko léegi daal bu fekkente ne ma ne ko man nit ku nekk dafa am lu lay bàyyi ci moom ak kersa li nga ma woon yar gi nga ma woon moo tax xaw ma nan laa lay def mais lii moom que ça soit la dernière fois su fekkee yaa ko def bu mu amati bu fekkente ne defuloo ko nag alhamdulilah mais boo ko defee bu amatee nga abal ma sama kër mu daal di génn daal dem léegi bi mu demee ma woo jànq beneen bi ma ne ko yow mu ne waaw ma ne ko est-ce que tu es sûr que moom moo ko def mu ne ma moom moo ko def ma ne ko ñaata yoon nga ko gis mu ne ma benn bi sax mbuus bi dama ko doon nangu ci moom mu màtt sama loxo mu ne ma benn bi daf ko def ci def ci ginnaaw kii bi cuisinière bi beneen bi mu def ko ci mbedd mi fii parce que des fois damay gis ay weñ bu ma kiyee man leen non man siwo poubelle bi ma jënd jënd ay sachet bugguma ngeen di def mbalit mi directement ci siwo bi da ngeen koy jël def ko ci sachet bi bu sachet bi feesee ngeen takk ko ba mu dëgër teg ko ci biti bu mu oto mbalit bi ñëwee ngeen dugal ko léegi ñu mu mu mu jànq bi avoué ma loolu ma woo sama rakk bi ma wax ko ko mu ne ma non loolu yenwul loolu loolu naka la mën a nekkee après mu ne ma est-ce que jànq bi nekkul ak moom pour ñuy pour ñuy ñu mu koy siis ak yooyu xam nga des fois yooyu day am ma ne ko non parce que kii innocente la xale la Ziguinchor la jógee directement dañ ma koo jox donc du genre boobu deful loolu su waxee rek c'est parce que dëgg la moo tax mu wax ko et il paraît que moom bu toggee sax xale bi du lekk parce que dafay seexlu jànq bi du lekk ba ñu xale yi ñeneen yi naan ko ah yow nii ngay def bu toggee doo lekk ndeke da ngay gis kii ba pare moo tax dooy bugg a lekk donc foofu la affaire bi daal démarré léegi bi ma ko waxee nag sama rakk bi moom mu xëy man ma dem liggéey sama rakk bi xëy ñëw ñëwee woo ko ànd ak inspecteur Diagne bi ñu ñëwee inspecteur kii ko il a mu mu mu mu avoué il a avoué que moom moo koy def nee na léegi kew lay lekk xaw ma bu lekkee kew xaw ma bu demee ci douche bi xaw ma ndox mi du kii xaw ma je sais pas ce qu'il a raconté douche baa ngi nii chasse baa ngi fi ndox maa ngi fi ak yëpp a ngi fi donc man mobile bi laa xamul li waral loolu moom laa xamul man
mais c'est c'est est-ce que bi nga ko bindee amut waxu la ne am na benn feebar wala nu mu mel nekk nam wala.
non non non non waxuma dara. waxuma dara wax na ma daal sëy na ba tas am na ñaari doom loolu la ma wax mais waxuma mosuma wax benn feebar bu nekk ci moom. te gisuma ko itam ci comportement am gisuma ko ci moom.
waaw. kañ nga def constat boobu moom.
man avant-hier la ma ko xale yi xale yi def nañ constat fan yëpp mais ñu ngi ma koy soog a wax barki démb bi ma wàccee.
kon yëf yi daa mel ni yàggoon.
ah. biñ biñ ko constaté waaw waaw ça fait depuis le 30 juillet la fi nekk on est le 20 le 20 septembre. le 20 septembre.
lu tax nga doon def loolu.
tamit dama ko doon sànni damay lekk kew léegi su ma demee ci douche bi affaire bi du def.
damay wax bu baax nga ne.
damay lekk kew léegi su ma benn jour ma dem ci douche bi. léegi affaire bi mu sotti sotti ndox demul. ma def paan yëpp duy dem léegi après su may dem damay jël soleil lal ko. après su ma paree def ko ci mbalit bi.
après def ko ci mbalit bi.
da nga koy dugal ci constateur bi ou pas il faut dire la vérité.
ci mbalit laa koy def mbalit mbuus boobu day def waasintóor su.
mais ci constateur bi nga koy dugal su su kii su oto mbalit ñëwul lañ koy def ci congélateur bi.
waaw nga koy dugal ci congélateur bu oto mbalit bi ñëwul la.
pou bi ngay dugal ci congélateur bi.
mbalit bi mbuus la bu def mbalit.
ma ne pou bi da nga koy def ci benn mbuus après nga dugal ko ci congélateur bi.
mbalit waaw déet lañ soxla.
mbalit lay àndal ma def ko ci mbalit bi def ko ci congélateur bi.
pou bi ci mbalit lay àndal nga def ko ci congélateur bi daal. lu tax loolu lu tax ngay def loolu lu tax ci paan yi tamit nga ci nga ci.
non non kii laay def ci soleil def ko ci mbalit mais paan yi kii yu ma ci.
parce que daaw woon dem toilette ci paan yi tamit.
non non.
lu tax loolu noonu.
damay dem damay su ma lekkee ko seer bi affaire bi du dem. damay xëcc chasse bi du dem ma duy paan du dem.
léegi yow lu tax mais bi nga xamee loolu noonu di ko dugal ci frigo bi lu tax arrêté woo woon di di lekk kew yow tamit lan la da nga am ay problème la moo dal ba ngay lekk kew da nga wannu loram de wala lan la.
wannu ma lool dara jotum.
léegi lu tax lekkum kew googu na.
dara sama xel moo ciy nekk.
sa xel moo ci nekk léegi lu tax ngay jël yëf yi di ko dugal ci ci réfrigérateur yow tamit.
laaj ko ndax mosu ko def si togg bi tamit. ak ndax moom dañ ko yabal ci kii parce que am na ñoo xam ne que ni dañuy def loolu parce que. ay affaire wu. lu nekk mi ngi ci quoi tu vois. lan ndax dañ ko yónni.
pour sànni ko mu ko doon def si mbalit laa koy def mbuus bi mbalit la def dama koy sànni.
mbuus bi mbalit la def da nga koy sànni. mais c'est pas la première fois parce que ñoom nee nañ ñetti yoon. yaa ngi def loolu noonu di ko def ci.
te dama ñëw nga waat ci barke Mouhamed.
waaw def naa ko.
def nga ko.
waaw.
léegi mais yow lu tax mënoo woon ut beneen yoon goo doon def ko di ko dugal ci frigo bi.
te toujours laa koy def ci congélateur su kii ata ñëwee noonu dama koy génn yooyu dama ko fàtte woon.
premier jour bi ko jànq bi gisee donc loolu moo si nekkoon moo tax nga màtt ko.
waaw.
ah.
waaw.
mais lu tax loolu démb bi la moom bi mu la ko. avoué woo.
dafa am lu la dal.
déedéet. déedéet.
yow weer nga.
mais ay puup naka lañ koy jëlee di ko dugal ci congélateur. di ko bokk ak ay lekk.
lekk yeeg ñoom naka ngay jëlee puup di ko dugal ci congélateur yow. mos nga ko gis mos nga ko def feneen.
déedéet.
yaa li may ngi koy door a def.
li may kii nii moo tax may seere xam nga lekk ko.
mais mais lu tax mënoo ko woon bàyyi parce que lekk muy seere ngay jël euh, yëf yooyu gannaaw àll ba pare di ko def ci frigo bi moom lu tax mënoo woon arrêté lekkum keew gi dara.
dañ leen a boo ko arrêté da ngay da ngay faatu kenn xam ko. kër bi dama. kenn xam ko.
léegi eh, est-ce que mosoo woon am ay problème si sa àdduna ay jafe-jafe yoo xam te ni xaw na tourmenté tuuti sa bopp ak yooyu jafe-jafe.
Hmm.
déedéet.
Hmm. ah mosoo sama am bopp sama bopp déedéet mosuma am problème xel.
mosoo am problème xel Le- mais lii nag lu tax nga ko doon def
Hmm, dinaa juum rek may jéggalu.
dangaa juum may jéggalu defuma ko woon pour lu bon pour jox ko mu lekk parce que moom jiwuma ko dafa baax ci man.
Mhm.
teguma pression yàlla mi ma tim xam nañ teguma ko defuma ko woon dégg naa fii ñu naan est-ce que dañ koy def pour lekk sax mais loolu daf ma choqué defuma ko si lekk.
Hmm. mais yow it ak ni nga mel ak moom loolu xanaa ya- sëy nga ba tas xanaa boog hygiène war nga ko mën a xam Mhm.
ndaxte ay ay ay gannaaw àll nga jël def ko ci frigo lu ne mën na ci am. Hmm?
naa juum rek maa ngi jéggalu.
te mu lay fay quarante cinq mille francs ngay wàcc chaque jour boo guddee mu may la paas loolu nga def ñaaw na.
léegi nag seen euh, sa doom yeeg ñoom anuñu léegi sama doom yi ñu ngi fi dañu war a ubbi lëkk yi lëkkaat.
la carte gi dañu war a ubbi léegi nag Hmm?
Hmm?
léegi nag ci lan li nga def ni naa may jéggalu madame Fall rek jullit ak moroom rëcc ak rëcc torop
léegi premier jour fi mu ñu yóbbu woon il faut qu'elle explique waaw fi fi ngeen leen yóbbu woon bés bu njëkk bi fan la foofu foofu laa dëkk foofu nga dëkk kër gu mag googu kër gu mag googu kër gu mag yi ci kaw ay locataire ma fi ne yeneen ci suuf dafa dañu tëj yeneen kër yi yeneen bunt yi ñaari néeg rek lañ fi bàyyi yaa say doom fa nekkoon non sama doom yi nekk ñu fi man ak sama cousine bi rek yéen a fa dëkk ndax nga ni paa beeg mère bi dañ dem kaso rajab te c'est pas vrai xam nga loolu da yàq xel premier jour yow waxoo dëgg pour lan loolu dafa mel ni yow li nga def tey da nga amoon intention def ko tu étais mal intention def intentionné depuis le début parce que yow dëkkoo ak kenn yow ak sa cousine yenn kii sa cousine bi mu wàccee elle était bizarre madame Fall mii je lui ai dit que ni fii foo war a dellu si la wala man la kii dooyuma ah sa bi cousine bi elle était bizarre bi mu wàccee lu tax yow nga ñëw di ñu ndax nañu paa beeg mère dañ dem kaso la jàpp te fekkee yow ak moom rek yéen a dëkk xam nga ay fen du yàgg ñaari weer rek la am kon yow da nga amoon benn intention bu bon au début wala lan moom benn fan nga jóge Cees laa jógee Thiès kañ nga ñëw fii di di di di ut liggéey mbindaan am na trois ans am na ñetti at am na foo njëkkoon a liggéey waaw am na fu ma doon fan ak liggéey fan la noonu fenn laa doon liggéey bi mu fa jógee fan juin mamel la nekk bi mu fa jógee juin lan moo la jëlee foofu ñooñu ay ñàkk lañ dañuy ñibbi ñëpp Abidjan dañu la naan dañu ñibbi tey bi mu fa jógee ñoom juin lañ dem après ma noppalu noonu comme yàgg naa liggéey après ma dem juillet fin juillet ci laa dem toog fee.
pas vrai fin juillet ci nga dem foofu noonu Mhm.
ay ñag rek nga mës a dem man foofu mosuma kii foofu bi nga laa mos jógee bi nga jógee Thiès ñëw fii ñetti at yi nga liggéey mbindaan ñooñu rek laa liggéey ñetti at yëpp ñoom nga doon liggéey ñoom rek laa fan nga liggéey.
dëkk ci Thiès Medina Fall école ci école bi.
ci école bi Medina Fall Lu ngeen ñaar bokk?
ñoo nekk su ñaar yaay ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñu ngi ci yes moog sa yaay ñoo bokk benn kër non bokkuñu kër mais sorewuñu seen ñaari yaay ñoo bokk ndek baay non non ay doomu ndey lañ.
ay doomu Suñu ndey ñaar kon lii nga jëf daal mosoo ko woon def dalay doog a arrivé mais pourquoi ñetti yoon ñeent nga koy def dafa mel nii parce que benn sax mën nañ comprendre ñaar à la rigueur mais ñetteel ba loolu day mel ni la loo tàmmoon di def la wala loo loo xam te ni daal yàgg nga di ko def non non du loolu de su ma kiyee su ma seeree noonu ndax des fois avant may ñëw waaw mais bu ma seeree nag te keew gi di la bëgg a yóbbu laaxira ba ngay jël gannaaw kër ya di ko dugal ci biir ci biir ci biir ci biir ci biir ventilo ci biir réfrigérateur bi kooku quand même nga bàyyi kaw mi nag yow tamit ah léegi lu tax nga doon kon ne di lekk kaw bi noonu yow wannoo lor dara jotu la ana yow ak lekk kaw
dara su ma gisee sama xel da ciy nekk rek ma jënd
te man man mosuma ko gis mu nekk kaw.
mosoo gis mu lekk kii gis sa ndeyla bu ndaw fekk na du ngeen ko gis sama ko yënd bu ndeyla bu ndaw fekk na ba taxaw na lekk lekk kew du ndam ba noppi taxul léew ay bu xanaa sa biir est ce que amoo problème biir sa biir bi baax na est ce que baax gën ah sa biir bi baax na est ce que ba mu lay def comme genre kii
baax na damay constipé lu bëri da ngay constipé lu bëri mos nga cee dem hôpital wala mos nga koo ut pour faj ko non non yàgg na ak yow loolu yàgg yàgg na kenn
lu tax yow boo ñibbi fii mosoo fi sangoo Duma- te da ngay yendu su ma demee sunu kër laay sangu
soo demee seen kër yow nga nekk liggéey toog waañ Allo?
mais non saw ma ci paan da ngay saw cee fa man man saw ma ci paan loolu moom beneen jànq bi moo la ko mën a wax parce que moo ko fekk nee na ci wàññi mu saw ci paan bi ba pare sotti ci biir évier beneen jànq Allez, lekk naa fi.
mais loolu tamit yow sa sëy ga lan moo la fa jëlee sama sëy ga nga new foofu benn kii la woon benn benn village la woon après dafa metti foofu nga tàggoog nit ki sa jëkkër ji Euh, lu tax est-ce que est-ce que est-ce que newul ñàkkum cet googu tamit parce que li ñu di expliquer nii ñàkkum cet la
du woon loolu de man maa kii yootu parce que foofu village la dafa metti woon moo tax nga tàggoog sa jëkkër Mënoo- may feebar après ci laay ñam léegi nag loolu moo tax nga bàyyi sa jëkkër méttiwaay googu mu métti amoo leen woon benn problème ci jëm ci ñàkkum cet am ñoon benn problème Hmm, kii moo ko mos a gis mu saw ci paan d'accord bi yaa ko mos a gis mu saw ci paan dafa mës a da nga ko mës a fekk muy sa muy euh, kii ci paan
man daal chaque fois du suy def daa mel ni dama koy yéeg daal.
Mhm.
damay wàcc ci kaw ma ñëw fekkee ko. première fois bi dama ci damaa dugg ci waañ bi juste mu jóg léegi buggul ma xam lu ne daa saw ci sio bi mais buggul ma xam lu nekk ci sio bi.
bi mu dem ci robinet bi mu yokk fa ndox mu ñëw teg fii sio bi ci waañ bi ma ñëw jël sio bi ma xool mais affaire bi couleur bi changé wul ma bàyyi ko waxuma ko dara kii bi beneen bi ci samedi bi la damaa wàcc ci suuf ma ñëw fekk ko mu yëkkati rob bi daf taati nen mu jël paan bi di ko sotti ci kii bi ci kii bi évier bi waa
loolu yëpp yow yaa ko teewe waa Euh, waaw dëgg la kon loolu yaa ngi koy doog a seetlu ci moom wala yàggoon nga ko di ko gis ci moom
parce que 30 juillet rek la ko commencé elle avait juste un mois
d'accord ok jërëjëf kon